الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سنبوك إمام عبد العزيز جاي بجاك ساكر jàkk sacré moo del si tey jeudi 16 mai 2019 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu ñaareelu audio bés bi di sunu audio numéro 52 ci audio bi jiitu gis nañ ne alxuraan di waxu yàlla subhanahu wa taala mën na sëkk mën na sëkk pour ñu mun di ko àttewoo te nag loolu moo ñu jikk mbokk yi ñu def defuñ ko moo ñu jikk ñu def ko moo ñu jikk ñu jàll nag léegi ci ñaareelu tomb bi nga xam ne moom lañ jagleel euh, jikkoo woo bi nga xam ne moom la julli yi war a jikkoo woo alxuraan dañ laaj dañu laaj sunu yaay Aïcha radiyallahu anha dañ ko laaj ne ko lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yaay Aïcha radiyallahu anha ne yonent bi sallallahu alayhi wa jikkoom mooy alxuraan kon ñun jullit yi pour ñu mën a jikkowoo alxuraan nañ roy yonent bi nañ def suñu kem kàttan def ay effort pour am yenn ci jikkoom yu rafet yi nga xam ne moo tax borom bi allah subhanahu wa taala daal di ko tagg dama ne yenn ci jikkoom yu rafet yi laa wax ndaxte mënuñoo am lépp su mënoon na am jikko yu rafet yi yëpp nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am kon dafay mel ni ñun dañooy dañu dañuy mot su boobaa day mel ni ñun dañuy mot su boobaa su boobaa te nag yonent bi sallallahu alayhi wa moom dong mooy nit ki nga xam ne mot na lu ko may kenn ku dul moom moom motuloo kon ñu ànd nafar mbokk yi yenn ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp mënul xaj ci benn audio yëpp mënul xaj ci benn audio moo tax dañ ci tànn dañ ciy jukki yenn ci ñoom ñu tàmbale ko jàngat diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak boromam Allah subhanahu wa mbokki yonent bi ku ragaloon yàlla la ku ragaloon yàlla la yi nga yonent bi at mam demee Taïf ak nu demee Taïf ba waa Taïf boole kook ñi nga xam ne seen xel wayul ak xale yi ñu koy sotti suuf ak sànni xeer yonent bi ba mu ba gën dëkk ba lim njëkk xalaat wax ko borom bi allah subhanahu wa mooy man su nekkee ne li ma dal nii su nekkee ne du li ma la tooñ moo tax su nekk ne dama la tooñ moo tax lii dal ma maa ngi lay jéggalu xoolal rek mbokk yi li mu njëkk a xalaat mooy ndax tooñul moom après mu tegal ko ci ne su nekk nag ne yow yaa ma ko nattu rek ci sa mandute maa ngi la ciy sant yonent bi ragaloon ku ragaloon borom bi Allah subhanahu wa taala yonent bi ku bëri woon ku mënoon jàmm yàlla la ku mënoon ragaloon na ko ba pare ku ko mënoon jaamu la itam exemple bi mooy naafila guddi yi suñu yaay Aysa nee daf doon naafila ba ba ba tànk yi di néew yi naafila guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ mos mel ni moom ci wàllu woowu ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëri woon na li muy jéggalu boromam bëri woon na bëri woon na lu muy jéglu borom bi bés bu nekk ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa julli yu juróom joxoon na leen seen àq suñu yaay Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu xasoon ba nodd rek dafay mel ni gan ci biir kër gi su déggee nodd rek dafay mel ni bokkatul bokkatul ci kër gi day mel ni gan ci biir kër gi ñun tamit nee na daf daf ñuy xool comme ay gan su déggee nodd rek su njàllee ci digganteem ak soxnaam yi suñ taj ci njàllee ci digganteem ak soxnaam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bari jàmm la ku bari jàmm la woon ci biir njabootam daf doon kaf ay soxnaam di ree ak ay soxnaam daf leen doon dimbale ci seen liggéeyu biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen jàppale ci liggéeyu biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegoog mu def oo soxnaam yëpp dajale leen ci benn néegu kenn ci ñoom ñoom ñëpp ñu ànd reer daf ko doon def suñ jàllee ci digganteem ak nit ñi ci biir pénc mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ku ku yéen la woon ku tabe la woon rawatina nag ci jamono weeru koor bi nga xam ne ci lañ nekk nii moom tabam daf doon daf doon daf doon jéggi dayoo naka jekk dafa tabe woon daf doon joxe di maye waaye nag rawatina nag ci weeru ramadaan bokk yi bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rey gàtt këram mu rey gàtt waaye di joxe ndigal naan di joxe di ko maye dagg fi jox leen diw dagg fi jox leen diw dagg fi jox leen diw maanaam gàtt gi yëpp mu daanaka mu maye ko ba mu des ah tuuti mu laaj soxna sunu yaay Aïcha euh, euh, gàtt euh, xar mi lan moo ci des sunu yaay Aïcha ne ko ah xar mi kay jeex na xel bi daal xanaa tànku kanam bi moo ci des tànku kanam bi daal moo fi nekk moom lañ fi moom lañ fi dese mu ne ko déedéet tànk kanam bi lañ ñàkk tànk bi kay lañ ñàkk dégg ngeen wax ji mbokk yi mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour moom liñ ñoom liñ am ci xar mi mooy lañ maye lañ maye loolu lañ am ci xar mi maanaam moom mu ngi seet la ko ci yàlla di fay loolu mooy am am bi wa tankana ba nga xamne mom dañ koy lek pour mom lolu lolu amuñ ko lolu dañ koy ñak nek wax ju wax ju wax ju wax ju am hikma mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ku amon ku ku amon kersa la dafa amon kersa neena ku amul kersa dafa lu la neex yonent bi neena ku amul kersa dafa lu la neex mu ne kersa dafa bokk ci juróom-ñaar fukki branche yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy branche yu iman maanaam mu ne imaan ngëm imaan soixante-dix branche la ay banqaas juróom-ñaar fukki banqaas la banqaas bi gën a koy mooy nga gëm tigi ne laa ilaha illallah kooku moom ne na moo moo jiitu mooy branche bi gën a kowe laa ilaha illa allah nga gëm ko kaste kasket kaste ko ci sa xol ak ci sa xel di ko dund nag mu ne branche bi gën a suufe mooy ngay dox ci tal ngay dox ci mbedd mi gis loo xam ne mun na gaañ doomu aadama yi nga teggi ko ikkati ko ci def teg ko ci pegg bi maanaam ngay dox ci benn branche boo xam ne am na ay dëkk wala nga gis benn xottu butéel ci yoon wi wala benn xeer boo xam ne mun na ci salu nga jël ko nga teg ko ci côté bi pour que kenn bañ cee gaañu loolu mooy loolu mooy banqaasu imaan bi gën a bi a suufee mu ne léegi nag kersa moom mu ngi ci diggante bi wane rek ne kersa yonent bi sallallahu mu ne kersa dafa bokk ci imaan kersa mbokk yi kon kersa jikko ju rafet la ndeke ñàkk kersa baaxut yonent bi lawan la won ku mënoon na muñ la yiko ko yiko borom bi doon tek daf ko doon muñ yonent bi kay xana mun wax sax ne dundam gi yépp natu la rawti nak at ma nga xamé ne ci la ñak bayam ba abu talib ñak ca soxnam sa Khadija at moom it tamit la dem Taïf waa Taïf def ko dañ ko fa def yooyu yëpp mu nekk ay xeetu nattu yoo xam ne yonent bi muñoon na ko laataa loolu tamit amoon yeneen nattu yoo xam ne wax dëgg yàlla laa yàlla àllaa tegoon na ko ko waaye mu muñ ko yonent bi ku mun muñkat la woon gàllankoor yi ko nit ñi doon teg tamit mu ko daf ko doon nangu moo xam ay kàddu yu ñagas ñagas la moo xam ay yenn xeetu gàllankoor waaye yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko doon muñ yi ku la dafa modestoon ku oyofoon la yonent bi su ñëwoon ci bërëb ci réunion masalan ci ci ndaje du jéggi nit ñi du jéggi nit ñi du traversé géew bi fa nit ña yem rek fa lay toog du traversé kenn du xañal leen yonent moom mu jàll kaay ju kaay ju taxaw di ko xañal di xàll yoon déedéet moom day ñëw rek ndànk fa nit ñi yem nag mu toog fa kenn du ko xalal yoon du jég du traversé géew bi ndax oyof yonent bi ku màndu la woon suy àtte ci wàllu dafa màndu d'une manière générale dafa màndu muy dem nag muy feeñ ci atteem suy atte yonent bi sallallahu du seet kan mooy kan seet jiw mooy jiw déedéet nga yonent bi nee na sax ci benn occasion bu mu amoon ne doomam Fatima su sàccoon ñu war a dagg loxoom dinañ dagg loxoom loolu dafa waxoon ay saaba yu ñëw ut intervention pour benn soxna soo xam ne kilifa la woon bu sàccoon ñu waroon dagg loxoom ñu ñëw di ñu ut intervention mu tontu leen tontu boobule. lu yoon war a def dañ koy def yonent bi sallallahu alayhi loolu la jàngalee loolu la wax ba ci sax ba ci sax mos na bés mos na ñëw benn juif ca Medina ak benn jullit waroo am contentieux ci wàllu commerce ñu ñëw ci yonent bi. yonent bi at leen daal di jox dëgg yawut bi daal di jox dëgg juif bi xam nga li mbokk yi dafay ñëw firnde rek li ma doon wax sànq euh, ci ci ci ci constitution ju euh, l'islam amul xajj amul seen yonent bi ñëw ci su ci ci ci ci ci ci sunnaam daal di ko daal ko firnde encore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi amoon na lool orma ci mag ñi yërëm lool xale yu ndaw yi yonent bi mu ne ku amul ku ormaalul sunuy mag yërëmoo sunuy xale bokkoo ci ñun ku yërëmul sunuy mag orm euh, ku ormaalul sunuy mag ku ormaalul sunuy mag yërëmoo sunuy xale bokkoo ci ñun beneen jikko yonent baa ngi noonu mbokk yi su weesoo digganteem ak nit ñi ci biir pénc mi dama jël ci yenn rek ci jikko yi su weesoo loolu yonent bi amoon na yeneen jikko yu rafet yu doy waar ma jukki ci rekk as tuut yonent bi ku amoon fit la yonent bi dafa dafa amoon il était courageux dafa ñeme woon mbokki mu nekk lu am solo mbokki julit du ragal julit du ragal de ko amoon fit xeex boo xam ne moo ko jiital boppam moo doon dem parce que xeex yi jihaad yi léeg-léeg mu yeble léeg-léeg mu demal boppam yi nga xam ne moo demal boppam ca kanam lay nekk ca kanam ca kanam leen nekk kenn du ko protéger day dekk ca kanam di xeex comme ñëpp yonent bi dafa amoon dafa amoon njàmbaar la woon dafa amoon dafa amoon fit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk lu bare mbokk yi daawul daawul lekk lu bare lekkam dafa dafa néewoon gis nañ ko ci ujo yi passé rek naka la ñu jàngalee ñuy lekk ni mu jàngalee lekk ma fàttali ko mu ne suñu lekk nañ xaaj suñu bill bi ñetti xaaj xaaj bu xaaj bu njëkk bi pour ñam bi ñuy lekk pour ñam bi ñaar ñaareelu xaaj bi pour ndox mi ñu bàyyi ñetteelu xaaj bi ndax pour air bi pour air bi pour ñu mën a noyyi nga yonent bi loolu la jàngale mu nekk njàngale moo xam ne comme nu ma ko waxee keroog rek dafa am valeur scientifique médecins yi ak nutritionniste yi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy appliqué dañ koy appliqué te yonent bi lekkam barewuloon daawul lekk lu bare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jikkoom tamit dafa diggu doomu woon ci lépp modération dafa diggu doomu dafa diggu woon ci lépp lépp lépp il était en tout ba ci sax jaamu yàlla bi mbokk yi ba ci jaamu yàlla bi ba ci jaamu yàlla yi dafa aaye ëppal ci jàmm yàlla bugg ko ëppal daf koy tere nee na képp koo xam ne yaa ngi ëppal ci jàmm yàlla toppaloo sunnaam képp ku ëppal ci jaamu jaamu yàlla toppaloo sunnaam te bokkuloo tamit ci xeetam lii mu ngi ko wax ci ba mu yëgee am na ñett ñoon ci këram di laaj moom naka lay jaamoo yàlla bañ ko ko waxee kenn ci ñoom ne man euh, euh, damay or at mi yëpp dootuma dogati kenn ki léegi ne man bàyyi naa julli eh, bàyyi naa bàyyi naa nelaw guddi léegi damay guddi gi yëpp dama koy naafi la kenn ki ne man de man sax dootuma tàkkati soxna sax faf léegi moom bàyyi naa sax takk soxna yonent bañ ko waxee loolu ne ko ñett ñooñu ku ci nekk loolu nga wax dafa mer dafa mer mu ne man de maa leen gën a maa ragal yàlla fuuf waaye damay naafila guddi di nelaw damay or di di di dog bu pare damay takk ay soxna pour wane rek mbokk yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buggul ku ëppal ci lenn ci lenn da dangay digg dóomu rek lépp ci sa wàllu dépense sooy dépensé doo doo yàq doo nay suñu borom sax loolu noonu la taggee ibadu rahmaan yi ci suratul furxaan ñoom suñuy dépensé duñ yàq wante amit duñ nday wàcc digg bi la ñuy yem dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy digg doomu ci lépp julli bi mbokk yi mu nekk juga joo xam ne nañ ko nañ ci bàyyi xel dañuy digg doomu ci lépp duñ néewal duñ néewal dara wante tamit duñ ëppal ci lenn xanaa digg doomu rek ba ci ba ci li nga xam ne moo tax borom bi sàkk ñu ba ci li nga xam ne moo tax sax ñu nekk fii ci ci àddina maanaam jaamu yàlla bi même foofu aussi nañu fa def loo xam ne dafay diggu doomu ñu bañ a ëppal ci lenn mbokk yi jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xejul ci ojo xejul ci audio mu taxoon dama lu ma jukki woon la rek lu ma jukki woon la rek ah pour ñu barkeelu ci ak gën ci gën ci roy rek yàlla ñu yàlla xiir mbokk yi yàlla yàlla xiir ñuy namm jikko yonent bi sallallahu alayhi leen di màng nag yàlla ñu xiir ci loolu ñu namm leen leen di màng ah yàlla ñu yombal tamit ñu am leen subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayka اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم